ñi ngi am mbégte euh, waa IGFM ñoo ñëw euh, pour talal sen micro. Latif Koulibaly dafa bind ben livre livre bi ñu tuddé ko Sénégal en marche muy Sénégal mu melni Sénégal day dox buñ ko euh disons ci olof euh waxé nonu euh est-ce que mën nga ñu jox rek ay firnde yi wane ni Sénégal mi ngi dox. salaamaaleykum. mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan émission bi ci IGFM moo tax la namoon naa lool gëj naa lay gis waaye xam naa ne fa nga nekk yaa ngi fay def liggéey bu mucc ayib li nga xam ne moom laa bëgg a wax ci njëlbeen mooy damay wone li nga xam ne moom laa gis ci doxalinu gouvernement ginnaaw ba ma ci nekkee juróom-ñaari at da wax léegi ne. Sénégal en marche mën nañ koy firndee noonu mën nañ koy birale noonu waaye la ma gën a wax mooy histoire moom maanaam li nga xam ne aju na ci li ñu war a tabax pour mu jëm ci kanam te ñu fekkee ko mu ñuy wax histoire am na lu ciy dox te mu ngi dox bu baax a baax firnde ma ci am takk naa ko ci ñetti alam ñam seetlu di gëstu li nga xam ne moom marqué woon réew mi indépendance bi léegi benn mooy li nasaraan di wax déséquilibre spatio-temporel de l'aménagement du territoire mooy li nga xam ne moo doon ñàkk yemale bi ñuy yemale naka la ñuy doxalee réew mi ak naka la ñuy joxee réew mi ay jumtuwaay lépp dana ñëw ci dëkki ko dëkki taax ka ci jiitu muy ndakaaru su desee dara ñu yóbbu ko ci biir réew mi loolu dama takk ne natt naa ne mu ngi am lu ci changé dama jël ci mbirum hôpital ak faj gi yaram ndakaaru moo yoroon hôpitaux yi nga xam ne ñoo gën a mag ci réew mi hôpital universitaire mosul am feneen fu mooy ndakaaru tey jii may wax yow Thiès am na hôpital universitaire Saint-Louis amna hôpital universitaire Ziguinchor amna hôpital universitaire même Bambey ci nous ñu ngi fay jàngale santé santé communautaire Lolé ci tak buñ ci mëna am moy lo xamné ne am ci réew mi moom fi tay parce que hôpital universitaire moo ni lan mooy ñi nga xamné ne jàngal docteur yi gëna xarañ ci xam-xamu santé léegi boo demee fekk leen Saint-Louis boo demee fa Bambey fekk leen fa boo demee Thiès fekk leen fa boo demee Ziguinchor fekk leen fa mooy ci paj ak nañ koy doxalee ak nañuy séddalee li réew mi am ñooñee jot nañ ci tey dama koy jàpp ci mbirum yoon yi nañ doon defee ak nañ doon séddalee loolu am na lu ci lu ci wàññeeku ak loo xam ne li yokku na ci ci jëfalin ak ci doxalin loole mooy lu ñuy wax déséquilibre territorial dafa amoon itam ci équipement yi nga xam ne moom la ñu soxla pour dund li mel ni ndox ah ba sëñ Macky Sall di yegsi si nguur gi président Macky Sall 2012 ndakaaru soo fi ñëwoon xayma bés bu ne war nañ soxla ci juróom-ñaar fukki junniy mètre cube ndox mètre cube bu nekk junniy liitar la boko ko jëlee ak juróom-ñaar fukki junne mètre day def ay millions yi millions litre ndox ñu soxla par bés loolee ma gis ne ndakaaru ba mu soxlaa juróom-ñaar fukki junne ña nga xam ñu nga nekk ci biir réew mu mosuñu am ndox ñoom ñu ci ñu ci di root président ba mu ñëwee dafa changé loolu mu ne lii suma priorité mooy na def be wa Tamba na nga def ba ña nekk Kolda foofu nga forage yañ fa mënta mën a gas mënta nekk forage yu xóot loolee waaye dafay forage yu yemeyaay nee nañ ci gas yu bari suñ tënkee ndox mi jaxase boole ko mën a jox gaa yi ñu naan loolu def nañ ko ci île yi ak yu ni mel ay takk la rek yu ma takk ci rapidement wax ko Eh, waaw xam nga takk mën nañu wax lépp euh, parce que peut-être temps bi duñu ko may mais junj nga ko ci livre bi ba junj sax ci maanaam nan la ñu war a mënee euh, jeexital bi nga xam ni gaz beeg pétrole bi ñu découvrir dina ko am mais euh, dafa mel ni ci li nga takk dafa am ay pàcc yu des parce que li nga wax par exemple junj nga ci piment am na liggéey bu ñu def par exemple dëkk bu mel ni Goudiri dañ fa defar forage. deux mois mu pan ñu ni amuñ nit ñi jaxle amuñu pièce de rechange depuis six mois ñi ngi topp di daw keroog président conseil départemental jooy ko ci sunu antenne est ce que egal euh, également du ay manquement dayakal xam ni day yàqal euh, nguur gi machine fu muy dox dana pan machine foo de dafay pan xam nga guddi li li ñuy wax roche bi nga xam ne fa la ñuy jëlee ndox mi lu jafe def la dégg naa ñu koy wax ci borom xam-xam yi entretien ba muy laaj mooy gën a jafe li may wax nag du pour jéggal ñi nga xam ne ñooy OFOR ak UGFOR ba fa nekk xam nga forage bu pan ci localité gouvernement bu defaree forage bi pare daf koy jël teg ko ci loxo autorités yi nga xam ne ñoo fa nekk ñu defar ñu defar association bu ñu tuddee Usifort mooy ñë fa dajaloo ndox ma nga xam ne lañuy am lépp lu pan ci machine bi ñoom ñooy jënd matériel bi def ko fa gannaaw loolu bu jégee bu yeggee ci yenn pan yoo xam ne ni ñoom mënoon nañ koo defar looloo tax ñu indi effort def ko fi ñu jàkkaarloo effort defar ko xam nga ndox bu paanee ñaari fan rek benn fan rek mu indi jafe-jafe ñooñu mën nañ ñëw yuuxu seen téléphone bi wax lañu war a wax waaye du caa génn politique ba nga xam ne moo lal mbir mi politique boobu baaxul luy dox dana paan bu paane ñu war ko defar xam nga lu bon ku amutoon ndox bay am luy paan da ngay jàpp ne amu amuñoo ndox ku amutoon ndox bañ indi la ndox mu pan ndox muy paan moo gën fu fu ndox. waaw mu mel it ñu bëri dañu jàpp ni dañu gisul léeg-léeg croissance ba croissance bi ñuy wax xam nga léeg-léeg ñu ni ndóol mi dafa gën a jéggi am na sax benn borom xam-xam bu génne keroog daal ni avant 2012 euh, ndóol bi euh, dafa wàññeeku woon ba euh, téeméer yoo jël ñaar fukk léegi nag nee na ndóol mi dam na ba ñeen fukk waaw waaye li mu wax amul amul benn rapport bu mun a lire bu ko indi jàng naa rapport yi ñu def yëpp avant 2012 sur la pauvreté au Sénégal ci 6 octobre na am lay Wade ci boppam jël na benn rapport boo xam ne dañ ko jébbal mu wane ndul wàññeekul gannaaw ba nga xam ne def nañ fi DRSP liggéey ba mu ca taxawoon moom loon taxaw yàlla jëlee ko fii kon bu waxee loolu bëgg-bëggam la wax ak xam-xam soo liiree suma livre di nga gis rapport yi ko génnee yëpp wax naa ko ci kon koolee li ma koy tontu dafa yomb nit mën naay far mën naay kontar waaye li nga xam ne moom la scientifique yi bind. Que ñaka wax kep ku pauvreté Sénégal nam 2009 ak 2011 dafa yokku tey ya ngay wax loo xam ne ñi wax check Africa fact check bu ko xoolee dañu waxul rapport ma 6 octobre moo ci mujj 2010 waxul loolu rapport bi ci après waxul loolu fu mu jëlee wax ci xam-xamu